محمد من جلوس من جرابين خدا قلبي جاي المصطفى إليك قلبي وسيدني رضا لديك بجاي وجه جميع عمري في العلم والأدب واقبل زهري بجاي جا عمري عباد مقبولة وابلي سعادة لين فادي وتهدني ما حيد أن العدا وتفنيم يا مميت من كارم ستر عيبي بستور وعيني في داج وفي سرور نار بابك وابتغي القبول مع رضا فلياب جملة سن نار بابك وأنت أكرم من كل ما ينمى إليه الكرم امعيا بكل وسليم مسلما على أجل رزري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همدات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وتقبل هذا الكتاب من مؤلفه بقدرات مديداته بلا سئ يسوع يبدر في هذه الدار وفي تلك آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رباني الحي الذي ليس يموت وأنت لا قد غنيت بالمؤمن برات من بارزني وباء عليه بالذي لا اتباء بغزوات المتفى غنيت عن قتل ومن قتلني ولم يعن نجد من جل عن المثال وساق لي ما لا يرى أمثالي الحمد لله الكريم الباقي ذي الأرادين تبني والتباغي تلم من ليس له فنا حديث على الذي جاد كل من دي حديث على بني العيان في تغربي من يرد مزرقا كمغربي بفضله صيرني خديما نبي الذي أوى تقديما بكوني لسيار الأعداء مسالمين وكفاني داء لو تقري بنعم الباقي ذو الأرادين زبي والتباقي مصليا على نبي الكريم من العلا والمدايا لا تريم نبينا المختار لا جارا صلى عليه من كفى الفجارا نبينا أحمد لا يبارا من رمد موحوى تبارا أحمد جملة البرايا أحمد مدى بذا الخديم أحمد إني على أحمد ربي أحمد فجر وخير القول إني أحمد نفى رسول الله عام أجدي ما أكبر شيطان عام أجدي نفع رسول الله عني الكدر صلى عليه بسلام ذو الخدر عتبت في البر كتابا يغني عن قدوات من كريم مغني إن تنفع لأن دير الفتح لا فتح لأن دير الجلد لأن دير الفتح rawatina ku mel ne sëñ aski de nga xam ne bis bi ñu koy fàttaliku rek doy na ci moom mandarga muy ci weeru koor te kenn nattali ko weeru koor weer la boo xam ne borom subhanahu wa taala nee na awaluha rahma awsatuha maxfira aaxiruha itqun min annaar kon day mel ne fukki fan yi ci yërmaande la fukki fan yi ci digg bi ak njëggal la ñu ngi ci fukki fan yi njëggal yi nga xam ne nga lay fàttaliku si askan te nit nit ku nekk par exemple di ngay fàttaliku ci moom la gën ci moom mooy moo am njëkk bu gerte kon waxtu bi ñu koy fàttaliku rek fan yi ngay jënd ñu rafet njort ci lool nga xam ne na ko seen askan te ngay jikko rafet nga xam ne ko xam Sëriñ Bass xam ne euh, dundam lépp ci dokk ak mbokk ak jëriñ bi nekk rek ci la ko ci la ko am ci bi nekk doonoon nit ku lewet bokkoon ci askan bu mag yi nag ndax Sëriñ Tuubaa rek doy na mandarga mooy doomi sëñ Mudu Maamun ñu duppee ne Sëriñ Mbàkke Buso te pour tuddee nit koy jël ci ma fay jikko waaye ngay sëtu mën lu leen naan nga xam ne kenn natt nañu la seen tubaab loolu moom dafa am lépp ñu ngi leen di sëñ As ci askanu alxuraan la ci askanu teg la ko suñu borom subhanahu wa taala defal ko li mu defal ñëpp mooy toog ci si biir maam mu wutu wutu te ay madam te ay madam ginnaaw bi ko nekk. sëriñ Hamidou Ndop mooy ñetteelu xalifa sëriñ Modou Mamoun liggéey fi liggéey bu rëy nag bu foog njaboot gépp ba tey jii su ma soxla taxaw dogal mu dem àjjana ñu taw fee xam ji moom amit ñu denc ko ci néeg sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moom sax te di noppalu fa la sëriñ Modou Mamoun tëdd wala yàlla defal na sëriñ Aske mu tëdd foofu taw tëkkaraat dam réew mi waaye doomam bi nga xamante ne moom koo xam ne yàlla defaral ak xolam la mu di seen maam Cheikh bari jàmm bëgg nit am njariñ bari yitte wutu waa juróomi wutaay boobu dara su ma indi ak dogalam mu jóge fi ñu dem lu métti di ñaan suñu borom subhanahu wa taala taxawul ko njabootam gi fi bàyyi ñu ànd ak seen ay gën yi nga si marché bi ginnaaw boobu nag dañuy seen mën maam muy toog koo xam ne xam ne nit kese la xam ne xam bi xamul sax ma fi ñuy denc kanam xamul fi ñuy denc kanam xamut it bu bu baax. waaw baax na kon bu ñëwee bu pare bu ñëwee waaye bii yàlla ko soxla nga teg lool waaye siyaare ñëpp jigéen bi soxna Mame Tall soxna Mame Moussa Bali ak Maguette Mag ñu bokkal sëñ Asma yëpp ci wàllu jigéen incha allah ñu ngi yàlla suñu borom taxawul ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen jaajëfal ci ñu affaire yi di ñaan borom subhanahu wa taala السلام عليكم أحمد رسول الله عليه خير صلوات الله نفى جميع ما نحاني من ضرر صلى عليه من يجود بدرر تلم من جل أن تعددي على الذي قد جاد لي بالمدد إلى نبي وجد عند من قبر أبكار فيض قد تجود من ذفر للمرتبى وجد مدى يغني عن المدافع بفجل مغنم ساق إلي الله بالمغتير صلى عليه مدر مغتير محمد صلى عليه الله الآل وسبي ومن والاه يقود لي من الكريم الأكرم ما رمد منه وما لم أرم علي دلي ما كريم سبا فيك الكريم فيدا وثير هبا أزكى صلاة الله بتديم على الذي منه به تعليمي ليبان أن المدافع أفضل من مدى ومن أنا ومن يبدي دمن علي ما غني عن شريك به غني عن دخان وبروك لسوا دون في المعرفة نكيرة كنت وزيد معرفة يا مصطفى صلى عليك بالسلام من جادني بك وفيك لن ألام من لكني أي الذي ليس يموت بك الذي من أمر ضري يميت من لكني أي الذي ليس يمون بك الذي من مدر يمين فسيفيكم الله واتبك عن الله جل شافيا داي وكوني البلايا كافيا فبانو رب يكون فديرا أما يسعى ويجر الخير سبحانه رب يكون فديرا أما يسعى ويجر الخير يا الله كن مسليا مسلما على محمد ومن تما كل يا خاتما من البرايا بجائي وجملة الرثايا أريد كرب يا عهد ذنبي وزدر أسران وآي قلبي يقودني إليك خوف ورجاء فأمن القفي واقل رجاء وانت في انظر السماء والأرض أني وما بينهما من مردي أبلي في الدار مني كوني عبدك مدبا وتمني بحفظك من علي بالذي ينفعني واتقيني جملة ما يبدرني اكفي ذوي السقاء والإضرار عني بجاه المصطفى المختار لك جميع الخلق فاكفني درر جميعا بجاه افدن البذر لك تجد لا تكلني لأحد سواك في الدار يا برو سمد أفضل صلاة وسلام أبل النبي ولي أجمد من الخلق جبين أبل النبي كصلاة قد دري ودك الدارين كل ما يدر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووجه إلى كل من تعلق بي بركات قولك وما كان الله ليضيع إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب ودود كل أبدا بالود وتمني عن درر وكد ودود أبدا بالود ودمني أن ضرر وكديم ما دعني العذا والدررا مني تقبل لسان الدررا إلا يقبل جزاء الباقي مع جزاء فرعة سباقي قسمي توحيد ومدح للنبي أليت لما غفور المذنب يغفر بجاء المصطفى لكل من أهبني لوجه مالك الزمن نافع بم وما كل من تعلقا يا من أداني بالنبي وأطلقا أزلك الجنة بالمختار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bu nuyoo mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di ñaanal Sidi Mbacke ibn Serigne Ass Guédé mu yag fi lol te wër ah, kon ñu nañ fi ci kër Serigne Modou Mbacke ibn Serigne Ass Guédé ñu fekk fi soxna Astou Gawane muy rak Serigne Modou roqiya di taalibe ci kër gi ndax chaque liggéey bu ñëwee euh, du toog fas ay tànkam day nekk ci waañ wi di liggéey ànd ak taalibe yi kon kooku yaay faal la ci kër gi moom lañuy ñu bëgg a jox kàddu gi mu waxtaan ak mbooloo mi bisimilah soxna su aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay di leen wax bàyyi yéen a ngi am jàmm di rafetlu seen teewaay ci kër gi di leen sant bu baax ci taxawaay bi ak liggéey bi bis bii kat lépp loo xam ne waaye def na ko ci suñu borom dana la fay ci ni ko bëggee lu kawe sa njort ndax sëriñ As moom képp ku ko lebal ker mu fay la guddi ndax day koo xam ne baayam da koo gërëm te képp kuy doomi Serigne Touba mu jamonoon te yow làq na sa ngërëm moo doonoon nit ku oyof nit ku bëgg njaboot nit koo xam ne xàmmewul woon doom ji mujj ak ndonga bi ci kër gi ñëpp doomi boppam la leen jàppe woon doonoon nit koo xam ne ku ragal yàlla te dëgmal ko yar ci ak njabootam xeetal leen ci ci lépp lu baax ki nga xam ne moo di doomam tey ñu daje fii ci këram muy sëñ Modou Rokhaya di ko liggéeyal baayam ba làq ngërëmam ñu ngi koy ñaanal lépp loo xam ne def na ko ci bisu baayam bi suñu borom fulal ko ko te nam ko bëggee ba mu kawee njortam di ñaanal nag ki nga xam ne moom lañu waroon jiital muy sëriñ Sidil Maxtaar di xalifab sëriñ As Guédé di ko ñaanal suñu borom guddal fanam wéral cëram ba li mu bëgg a liggéeyal baayam lépp mu def ko ni ko baayam bëgge te dëppoo ci ngërëm ak suñu borom di ñaana sëriñ maam seex suñu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem di leen xamal ci sëriñ As ne leen sëriñ As nitug yàlla la woon koo xam ne bi mu fi nekk leer nañu ne nitug yàlla la waaye bi mu ñu dëddoo ci leen gën a xam ne wàlliwu kaamil mooy sëriñ As Guédé ndax koo xam ne baat bi benn la koo ne Serigne As booy dox ci mbedd yi sax ba ne sëriñ As ma jur dañuy yëkkati seen kanam xar kanam xoolaat la kon teg nañu sas woo xam ne danañ ko bay xëy na nag fa mu eggoon mënuñu ko mais danañ def suñu kémt lay kàttan fas yéene àndoo nekk benn jàppoo di yëkkateendoo di dóorandoo ndax loolu rek moo doonoon bëgg-bëggub Serigne As àndandoo nekk benn jàppante di jàppalante di dimbalante di yërëmante loolu rek moo nekkoon bëgg-bëggam te incha allahu rabbi dinañ ci def suñu kéemte lay kàttan njaboot ki nga xam ne moom lañ fi bàyyi saa yu ñu xëyee lu ñu boole ñuy benn ci li nga xam ne ci la doon dox léppam ci jàmm la ko tegoon léppam ci oyof la ko tegoon sëñ sax moo doonoon nit koo xam ne maanaam ak ragal yàllam foo ko takk rek weesu na ko ak dëddoom nag ci la ko ñu baree bare bare ba doog a xam sëñ Modou mi nga xam ne nag nga xam ne ay loxoom depuis bi mu nekkee tuut tànk jóge ca daara ja musta génn loxoy sëriñ bi ba làq ngërëmal sëriñ bi ñi ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal mbokki taalibe yi lépp loo xam ne lu ñu bëgg la suñu boxoom defal leen ko ci ni ñu ko bëggee ak fañ ko bëggee ñi ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal sëñ a suñu borom yokk ay leeram te ñu ci barkeem njaboot gi fi bàyyi suñu borom teg ci loxo ci bàkki xaadimal Mustafa jërë ngeen jëf ne man yaluusu bi azatitari li wajikal karim yabdi kullama alabdu minka wa kulli alima laka xitaabi muqinan bi anni xillun wahibun faidun bilmanni hadaytani hidayatal hudaydi waliyaquta mun yatasadedi layantali bilmuntafal quluba wali bikun tuwasilul matluba يجود لي كن فيكون منك بما يسر قد رديت عنك دجو الكريم وقراء طيب بجاء من سمعت المطيب يقودني المختار والآل مع شعبي قدا يقيني تمعا ألا الذي رافقني في سيري صلاة باقني يقود ميري اكتب لمن أخذ بدي يا كريم مستعملا بي ثوابا لا يريم يا رب اجعل المريدين معا بإذنك العاثين والشمل اجمعا ملك جميع نفوسهم بلا هي يقدر والمساء يقبلا يغفر لكل من إلي مالا وعن يديه لا تزغت مالا نفعتني فانفع بي العيالا يا من حوى الأمير والأقيالا كن لي بما يفوق كل ظن يا خير موج مطيف بالمني مد سلامك بخير ودي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 taawam bu baax ba muy maam Cheikh Anta Mbacke di ñaanal yàlla yokk seen leer taaf ñu ci barke ak sëñ ci wax yëf yi nag comme ni naan demee dina demee xanaa yokkute rek moo ci am ndax daanaka mën nañ ñi njaboot gi teew nañ soppe yëpp teew nañ ndax béréb boobu nga gis ñu jógee fi léegi ca lañ nekkan ci wàccaayu xéewal ak yooyu xéewal yi nekkan daaw itam nañ fas yéene di yokkaat chaque année ndax euh, comme dañ ñi boo wàññiku da yokk yokku ko yàlla suñu borom dogal nañu yokk ñu ngi joolee sant baax a baax di sant mboolem taalibe yi fi daje ñëpp di leen sant seen wërsëg ak seen yéene ndax daaw daanaka mën nañu defe nañ ci demen ñeent nag juróomi nag ren ji daanaka mën nañu yokkaat nañ ak wàllu xeew lépp te lépp ginnaaw yàlla ak sëriñ Sidi yàlla na dimbali ba taxawaay bi mu taxawu ci njabootu maam sax ndegi ak taxaw bi mu taxaw ngir njabootu sëñ asgëlé gi yàlla may ko kàttan bu mu àggale ci barke sëñ Tuubaa ñuy sant taalibe yëpp gërëm ñëpp te xam ne ku jàpp sa nga jàpp la te xam ne moom yëfi borom bis bi defar na bisam bare waaye nag li ñu war ñun taalibe mooy ñu nekk ci comme nii ngeen gis sa gi nekk ñii nekk ñëpp taalibe kër gi lañ ñu góor jigéen ñëpp ngi fi jàpp ci liggéey boo demee ci kër gu magatam nu defe ñun yàlla suñu borom dogal ñu seeta ci waañ ñu ngi ci wàccaayu taal ndogu yi comme ni ñu ko doon defe ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wa sallim wa وآله وزبي وجن قصيدتي هذه إذن الاسئله لكل من تعلق بي من الناس آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك حق رجائي وأنت يا أكرم إن ظن عبدك فليظن بك ما شاء فبذلك ذكرك بهذه الأبيات متبركا بقولك فاذكروني أذكركم راجيا منك أن تذكرني بعينك وعين عبادك صالحين ذكرا أصعد به سعادة لا تقاوة بعد أبدا آمين يا رب العالمين هذا القلام اليوم بالخيرين ينسى من يكفيني الديرين هذا القلام اليوم بالخيرين ينسى من يكفيني الديرين أقرأت رب الله كوني عبده وخديم عبد الله في الدارين ذكري وزوري من الذي قد كان لي بأبي بالمتار في الكونين أفادو سبحانه عند الغداء فاتى بالنفس العام في الإثنين رمدو سكور لقابج كف الأذى أني وأني يزرف النارين وجود وجه للنبي تاخ المنى ليواد ويقيني الآرين ناجيت واجبني بلقبي قتلت للمدارك الجارين يا ربي صل وسلم في سرمد أبدا على من جاد بالبشرين على البرايا قرا دون امتران من مدعو يكفيني الشرين زلي بي لك زارع دناونا أقني بي أبدا أذى الحرين كنتي كتاب منك